bisimilah rahmaani rahim ange billahi mina sheytan rajim laa xawla wala quwata illa billahi alazim merci monsieur le président asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu monsieur les ñu ngi leen di nuyu di le ministre de des pêches et de l'économie maritime di nuyu sa collaborateurs yi ku ci mel ne madame le maire suñu collègue directrice Adja Tening Sène bi nga xam ne moo yor aquaculture di ci liggéey liggéey bu rafet bu am solo waaye nag mention spéciale pour le DG du port monsieur Mountaga Sy monsieur le ministre je viens de comprendre ñi nga xam ne ñoom ñooy wër di wax di yàq deru port ba tax na bu ñu jógee rek ñun député di wax am na lu tax ñuy wax mais bu ñu demee ba xam nag dañuy am audace dikk taxawaat fii wax li nga xam ne moom moo nekk parce que looloo tax ñu teg ñu fi dañuy jóg pour suñu askan ndax dëkk ñii bi terewul nga am njaboot port mais boo demee ba xam liggéey bu rafet bi nga xam ne am na fa dangaa war a nag am fidélité dikk taxaw wax ko ndax ñun dara ñoruñu lu dul président Macky Sall liggéey bi mu fi liggéey ñu feesal ko rafetal ko monsieur le ministre du finance yow mi nga xam ne yaa yor wàllu koom bi xam nga bu baax a baax a baax économie bi nga xam ne moom la port di dugal fii ci réew mi monsieur le ministre monsieur le DG du port bi nga ñëwee ñu ngi rafetlu assainissement bi nga xam ne def nga ko ci port bi di rafetlu organisation bi ak déroulement bi nga xam ne déroulé na ni mu war a déroulé li ñu ci gën a amal solo mooy jeunesse ba nga fa jël ñuy liggéey am nañ satisfaction ca la nga xam ne moom la ñuy def monsieur le ministre li nga xam ne moom la ñu moo ñu gën a neex mooy relancer bi nga xam ne réseau ferroviaire bi dinañ ko relancer ba mu dem ba ci port sec bu Tamba ba mën a jàll ba fële nga xam ne moo di Bamako te loolu dinañu jàppale ba nga xam ne dégradation précoce bi nga xam ne suñu yoon yi daan na ko am état bi daan ci dugal cinquante milliards chaque année pour defaraat yoon yi loolu dina am feneen fu mën a dugg ci ci koomu réew mi. monsieur le ministre am na ci ñoo xam ne jaruñoo déglu parce que ñu ñooy ñëw di manipuler nit ñi di leen wax ne port bi lii port bi lële ak ñi nga xam ne dañ faa nekkoon di def naka sa du noonu ñu assenir port bi ñu ñooy wër di jël di neexal ñenn ñi nga xam ne. nekkewuñ fi lu dut ay manipulation nekk ay nulis ak yàq liggéeyu président Macky Sall ndax liggéey bu wérte wóor moo tax tey ngeen mën a joxe ay caabi port ngeen mën a avancer yenn liggéey ci yenn port yi ba nga xam ne dans de très bref délai dinañ ko mën a libérer ak liggéey yi gën a mën a dox kon monsieur le ministre li ñuy wax mooy ngeen liggéey te bañ a déglu te ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs yi nga xam ne c'est c'est des acteurs sains ñi nga xam ne lépp luñ xam ci lu baax danañ dem wax ko feeñal liggéey bi ngeen di communiquer ak ñoom ñoo nga xam nga xam ne dinañ mën a wasaare li nga xam ne liggéey ngeen ko te doomu réew mi moom ko ñun soxlawuñ kenn ku dul kii liggéey te yéen yéen ak ci yoon wi liggéey leen ñu ngi leen di souhaiter bon vent madame la euh, madame la directeur général tamit boo xam ne aquaculture aquaculture la ñu ngi ñaan ngeen dollil ko ba nga xam ne li mu def ñii bi def ko feneen ak feneen dina ko mën a wasaare ba mu egg ci zone yi nga xam ne amuñ géej ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam